jërëjëf euh, mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci seen euh, émission bi di Touba ma yónni seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll di ko ànd a yéen jàkkaarloo ak ci wàllu caméra bi Serigne Mountakha Ba ñu leen di jaajëfal di leen euh, ziare bu baax a baax dellusiwaat nag ci ndawul Touba Touba yónneeti ma fan la ma Touba yónni tey jii ci gaaw bi yamoo ak ñeenti fan ci weeru novembre fu ma Touba yónni guy mbind mbokk yi maa ngi ci tëli bu doy waar tëli boo xamante ne bii la ma waxoon rek ci kër alhaaji Mouhamadou Lamine Baara moom lay waxaat fii mbokk yi tëli bi tal jamono joo xamante ne mbooleem administration bi ak mbooleem nit ñi yoon wi ñëpp tëli bi itteel na leen ndax lan Serigne Touba Cheikh Sidi El Mokhtar nekkoon fi di xalifa général des yi tëli bi jamono jooju lañ ko fi def maa ngi tëli bi jógee gaar ba ñëw bay dugg guy mbind tourné ci buntu kër Serigne Bassirou Khadim Awa Ba jaar ci pencum guy mbind jàll waaye beneen bi continuer dog yi rocade bu mag ba nga xamante ni bii moo di corniche bi beneen bi jaar ko ci sa loxol càmmooñ fi gaar garage bu mag fi daral gu mag njëkkoon ne génne gaar bu ndaw mbokk yi nag lépp tëli la waaye lii may gis ni nag yaakaar naa ku ko xool xam ne du tutali de ndox mii mbokk yi dama waxoon rek amu fi mennaat amu fi ñaari at ay at la fi am te ab diggante la boo xam ne amul benn solution buñ ci jéem amul yenn xalaat yuñ ci jéem bakañ nii la ñuy bàyyi te fuñ toll di ñu tuumaal képp kuy wut réew mi daw wut si Touba képp koo xamante ni bii am nga loo bëgg daw ñëw Touba te boo jekkee rek wan ginnaaw waa Touba nekk ñu fi nag def nañ Touba nangam def nañ Touba nangam Touba bi ñu defee études yi nga xamante ne bi doon nañ seet rek foo ëpp ay population département Mbacké bokk na ci ñi ci département yi Dakar sax ñoo ko ëpp mbooloo kon kay waruñoo yem ak kenn ay droit li ñuy dugal ci économie bu Sénégal kenn dugalu ko événement yi am Touba amul ci benn ñu bëgg a yemale Touba ak yeneen dëkk yi ci des mbokk yi lii ba kañ yàqu na de kan moo koy defar kan moo ñu koy defaral ñun waa Touba ñoo ngi nii de jafe-jafe bii de bala ma ciy sori rek maa ngi ñenn ñoo xam ne dëkk nañ ci quartier bi. dund jafe-jafe bi muy jafe-jafe bu metti Touba yónni mi sëñ bi maa ngi lay nuyu. jërëjëf waay Thiam laa sant sant man Sidi laa sant. waaw sëñ bi yow noo sant. Diop sëñ bi Diop ah. waaw sëñ bi Diop Diop Diop sëñ Dia Sy Diop. waaw Dia Sy maa ngi leen di ziar. waaw jërëjëf waaw sëñ maa ngi ñëw ci quartier bi. fekk fi ay jafe-jafe. yéen bi waaw lii noo ko gisee. li ma ko gisee kay moo di. man lee sama kër. Hmm. lii mooy sama kër ñetti at ñeenti at. Hmm. dañ maa abal kër mënu ma cee dugg li ci nekk mu ne su ko wax sëriñ bi te gisuma ci kenn ku ci jël benn effort pour di di jëm dara du ndawal buur du kilifa génn du kilifa aada kenn ku ci jëm dara ci mbedd mi amul seetaan gi ñu seetaan dafa metti trop mbedd mi kañ la yàqu mbedd mi mat na ñetti at ñetti at mat na ko yoo xam ne si doon tudd mi ngi nii yaa gisal sa bopp ndox mi fi lay noor waay waay dégg li wax sëñ bi fi lay noor fi nawet man ñetti at a ngi dugg ma saa kër lii mooy sama kër gisoo benn ndimbal ba sar sa benn foofu kenn ku la ko jot ne la sa sa biirum nag du amul ci Touba waaw moom se s man sëñ Mountakha rek fii liggéey ci dëkk bi ñi des ñëpp seen bopp lañ nekk man noonu laa ko gisee man nam sëñ Mountakha moo fi liggéeyal sëñ Touba ñi des ñëpp kenn ku ci defal sëñ Touba dara gisuma ko loolu leen jox ñu denc amul ndimbal lu fi nekk ci noonu man de ñetti at ngi dugg bi sa kër léegi sama kër jërëjëf barke sëñ Tuubaa jërëjëf fàttali ma tur bi man waaw jërëjëf mbokk yi ñoo ko déggandoo sëñ Daam Caam Touba guy mbind mbedd maa ngi nii maa nag sama caméraman mu di ko wan yaakaar naa ne moom nee na këram ñetti at a ngi ne dugg fi waaye ma doxantu ak Serigne Mountakha Ba ñu dugg ci biir quartier bi fekk fi Serigne Ndiaye Diop moom itam ci daral ji la nekkoon yaakaar naa ne li yàqu ci mbedd mi du mel mbedd mi ñetti benn bi nga xam ne moo jaar ci kanam kër sëñ Basiru Mbàkke mu sëriñ Xaadim Awa Ba beneen bi ko jaar ci ginnaaw ak bi nga xam ne moo jógee jaar ba ñett mbedd yëpp yàqu dégg ni ko sëñ bi waxee nee na kenn mosu fee teg sa tànk ngir di jéem a xam seet ban solution lañ mën a def ba liñ fi saafara ñu saafara bokk ici de Touba ma fi yónni de ñëwalu ma fi sama bopp de Touba ma doon xool rek na ma demal ba bërëb sàngam mbokki bërki Dembo Ndiaye am na ci quartier Touba boo xam ne am yeew lañ fa jàpp yeew mu mat 4 nangam luy waral yeew yi mooy barax bii ak ndox mi fii de bokk yi bu fi am yeew duggee mën na fee nekk ba mat ba motti te kenn du ko gis xoolal ma barax bi ni mu saxee barax bi sax fenn fu amutum ñax xoolal ma borom bâtiment bi ñàkk na bâtiment am borom terrain bi ñàkk na terrain am kër yi kenn mënatu fee dugg lii dara wóoru ci te ci biir dëkk bi la nekk lii mën naa jur danse de tëli bi moom kenn limaaleetu ko tëli buñ éliminé la bokk yi lii ba kañ Touba mu ci yónni de muy seen bokk taalibe Fallou Galass la Touba yónni waat ko ci ay jafe-jafe muy dund ci biiram mu jaaxle ci nag lii ban solution la kan moo ñu koy defaral waxtu wu ne de yaa ngi dégg ñu naan lii moom ONAS moo yor lépp lu jëm ci wàllu ndox muy taa ONAS moo ko yor lépp lu jëm ci wàllu tëli AGEROUTE moo ko yor te ñun ci ab commune lañ nekk commune bi nekk ci ab département département bi nekk ci ab région région bi nekk ci ab république bu tudd Sénégal ñun ñuy waa Touba ami carte d'identité di fay ay impôt di participer ci économie bu Sénégal ñu seetaan sunu dëkk mu mel nii ci dëkk boo xamante ne bii million bu tegal lu baree baree bari dëkk na fi ci ay nit at mu jot lu mat cinq million wala six million wàcc fi dugal lu mat deux cent milliards ci économie bu senegal ñuy seetaan dëkk bu mel noonu lii ba kañ sëñ Tuubaa da ñaanoon na ko wàccal bihi daariye kal madina barakatan wa kahbatal masuna ñaan googu nag dañ koy gàttandu bokk yi seen bokk taalibe Fallou Galass Syll yónni woon ko fii ci guy mbind ci wàllu caméra bi ñu leen di sant di leen gërëm di leen joxaat rendez beneen épisode wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu